acca mbokk internet yu série bi kuñ Dan l'unique Dan la star l'artiste Dan le choix des sénégalais wala le choix des jeunes filles. maa ngi lay en tant que jeune artiste nga boole fi say mag say rak say say say pour organiser benn ndogu spécial alors bi nekk deuxième édition bi ko mais ak c'est pas la même chose alors tey ban nga bon balaa wax dara dama naan la alhamdulilah parce que yàlla jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax parce que kenn ku ne xam na ni euh, joxe ndoo jox joxe joxe ci xol la te gars yi tey def nañ ko lu mu waree ñëpp ñi ngi fi ñi nga xamante ni samay jur comme ni nga waxee samay fans ñëpp ñi ngi fi ànd ak man di joxe ndogu def nañ ko premier édition deuxième édition nag mu gën a neex ñu yegg si yokkute yegg si leneen ak leneen donc alhamdulilah quoi. dama am ay témoignages bari def je crois que Youssouf la musique donc dem un petit galet alors tey jii nga gis sa yaay sax ay cadre à chaque fois dañ koy wax yéen ñaar seen complicité lan la nee na boo sax si ngay mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek man sama yaay mooy sama lépp mooy sama je sens que bu ngi quoi. franchement donc maa ngi koy wax jaaraama jaaraama jaaraama mu yàgg fii lool te wér ak tous les moments du monde. da doon dugg daara nga daw. man <laughs> waaw dawoon naa daara daw nag <laughs> dawoon naa daw fàq ñaari yoon sax. njëkk fàq benn yoon ñu delloo ba ma demaat ne leen bii baa boo leen ma téyewul soo fàqaatee du ma ñëw ci kër gi <laughs> ñu tiitee <laughs> mais depuis lor nag bon ñi ngi sant yàlla parce que suñ lay def loolu noonu da nga yaakaar ni dañ laa bañ te or que yow sa jàmm lañu la bëggal dañ la bëgg rek nga avancer franchement bi ñu màggee tamit rëccuwuñu ko sant nañ leen gërëm nañ leen waaye. kon artistes yi bay na naan ñu bëri na naan non ñi artistes yi xamuñ dara jànguñ dan moom dem na daara ba jàng alxuraan. ah à part à part musique bi boo nee dan dan musulman la tamit ay taaliba Serigne Touba lañ. musique bi dañ koy def moo nekk suñu deuxième quoi mais suñu première mooy li nga xamante ni dañuy jaamu yàlla quoi voilà. alors bu ñëwee maanaam si wàll musique temps yi gis nañ dan musique bi nu mu demee génne nga fi ay single yu bëree bëri Sénégal adopté ko foo dem ñu koy TikTok alors loolu la la de. bon loolu duñ si def lu dul sant yàlla parce que liggéey kese mooy maye loolu ak tamit euh, sénégalais yu bëgg la am fuñ la teg nga xam ko donc instant boobu noonu amatoo ñun instant bii nii ci yoon boobu noonu la ñu nekk parce que waratuñu génnee loo xamante ni de gars yi dañuy dañ koy lamb-lamee dañ naan tane na lu ñu génnee dafa war a baax dafa war a nekk it waaw ah te di ngeen gis yeneen nax yeneen nax yeneen waaw ak euh, Souleymane Awalaay voilà en parlant de Souleymane Awalaay moom waxtaan ak moom dem naa sa ba ni ko est-ce que daan mën na delluwaat suba teel wala ZBS mu ni moom choix bi si yow la alors yow moom am na lu muy waaj yow tamit peut-être est-ce que dañuy gisaat beneen dio entre Dan ak Jules. waaw je peux dire parce que sant bii nii maa ngi nekk euh, di liggéey ak Jules Teranga ak JTCOM léegi léegi di ngeen gis yeneen affaire jarul sax may wax di ngeen gisal seen bopp na doon ay surprise di ngeen gis affaire bu haut level affaire bu kawe. Dan ci beneen maison production bu bees. waaw. <laughs> Mour la nga xoolee. <laughs> Ah ouais, comme tu le vois. Ah ouais. ngi kon jur moom wax na lépp yaa ko déggal sa bopp. gis ma ko woon kon comme comme jur mi ko waxee sa kër sama kër la foofu sama kër la maa ko sanc man sama yëf la maa ko moom c'est pour moi. maanaam kër gi yaay taaw bi. jeex na tàkk maa ko sax moom. léegi sax mun nañ fekk kon yeneen artistes. sa musique bi mm. est-ce que maison de production permettre encore une fois de changer un style musique wala dans day continuer même temps non nous bon euh, ak surprise ak li nga xamanteni bon. Surprise. Gilles Gilles non di nga gis di nga gisal sa di nga sa

sama sama sama sama sama lépp la moom laa nekk di liggéeyal waaw. parce que dinañ waxtaan sa mu dem sax ba ba koy remercier moom mu fekkee remercier encore the best noonu la remercier Gilles mais daf si appuyé bu baax a baax a baax mu mel ni peut-être léegi maintenant mun nañu wax ni carrière Dan dina am beneen niveau boo xam ne àgg na fa. incha incha allahu rabi parce que jaar nañ fu bëree bëri def nañ lu bëree bëri donc tey tamit la yàlla dogal tamit ñu nekkaat di liggéey je peux dire mais bu may kàddu yoo xam ne kàddu yu mujj lay doon après dañ ko àgg am na yeneen yoo xam ne moom ngi sama boobu mais mun ma wax bi parce que Jules moo tax Jules Jules Jules da lay <laughs> <laughs> tey boo amee yoon kàddu yoo xam ne mu ngay tëjee remercier maanaam sa fan si club yi alors parce que sànq sa mu ngi am ñu bëri presque ñu ndogoo tey yëpp ñoo ko def. bon je tenais à remercier tout le monde parce que c'est pas si facile am na ñoo xam ne dañoo jugee ba Touba xam nga ñi jugee ba Rufisque. ñu jëgë fu sori pour ñëw téwé li nga xamante ni mooy ndogu dan family bi té tamit gis nañ ni def nañ ko ak ak xol ak yegg yegg franchement ma ngi leen di remercier chat ba chat sama papa yegg sama nijaay yegg képp ku ñëw ci ndogu bi rek ma ngi lay remercier ah way dila ñaanal guddu fa nak wër gu bare bare bare yaa neen sa nga tak jaba <laughs> inshallah allah ngay tak? légui rek bo taxé rek <laughs> mo bo taxé rek <laughs> ku fi nekkee saa yi. bambaa la nga jiitu. kenn neuf maa ngi. wéykat la wala kenn xamul je sais pas <laughs> yow gis <laughs> moom bàyyi ma waay. merci beaucoup kontaan naa. allez c'est gentil. far yaa fi ne. maison Jules. Jules. maison de production si la bokk. waaw yéen a ngi ci biir. alors soxna si taw naka. salaamaaleykum salaam maa ngi fi. Mm-hmm. waaw rakkam laa. lan nga lan nga mën a wax sa sa mag muy daan. bon dan nekk na nit ku baax nit ku am yitte nit ku nit ku spécial daal parce que tey jii jikkoom ak li mu wone moo waral gis nga mbooloo bi fi daje nit yi am na nu mu doon demee wala am na jikko bu mu doon wone bis bu wootee du gis kenn. nga la du ñàkk gis kenn sax mais ñun ñi mbokkam dong lay gis mais tey ji gis nga li fi nekk ci doomi aadama macha allah kenn xamul luñ toll. yow rakk daan fiiroo daan xale jigéen ñi ko toppee. ah bon <laughs> ah aar bi moo ko laaj <laughs> mënu si dara. des fois doo am na say xel yàlla na mag di daan dem école ñu lay laaj ah bien sûr. <laughs> ah nañ fexe xamanteeg moom rek waaw. non non. alors dan gisee maanaam mi ay son musique affaire yooyu noonu donc boo amee benn conseil boo xam ne nga ko jox lan lay doon. bon. dama koy ñaanal mu gën a évoluer yàlla may ko lu lu sut lu sut lim nekkee daal. Mhm. mag bu baax bëgg ay raqam fonk ñëpp bëgg fameem macha allah. ah xanaa ma di ko gën a ñaax rek mu gën a góor góorlu yàlla yàgg xëy na yàlla duñ ko gën a dooleel incha allah. <laughs>